ci lu bare bare li ñuy xaar ci assemblée nationale bi et effectivement le rôle de ces députés ci surtout contexte bi ñu nekk mais mais le problème Cheikh Omar gu yegguñu foofu yegguñu fi député yi war a toogee ba peut-être war a mën a commencer lijjanti li nga xam ne moom moo leen fa tax a toog ñu ngi ci sàddu peut-être tànn kan mooy président kan mooy vice président kan mooy questeur kan mooy nangam nangam foofu jusqu'à la dernière minute man je crois dur comme fer que jusqu'à la dernière minute il peut y avoir des surprises. Euh, comme Bambale mu wax euh, on ne peut pas détacher la chose politique de l'Assemblée nationale. bien sûr bien sûr. Euh, l'Assemblée nationale ñi fa nekk il émane de la politique et <laughs> fii ngay xamee ni c'est hautement politique mooy euh, musuñu am si histoire u Sénégal assemblée boo xamante ni euh, nguur gi ak kujje gi daanaka dañoo toftalante ça c'est tolloo hmm. donc loolooy tax bi pas dina nekk lu seere parce que soo doon seet bu njëkk ba hmm. euh, da nga doon gis sax kujje gi da doon am jafe-jafe sax si temps de parole c'est-à-dire ni ñuy organiser débat bi sax en fonction de ce poids bi nga am ci nombre de députés groupe parlementaire bi nga toll ci nga amee kàddu am ñoo xam dañuy nekk non inscrit et cetera Euh, kon tey chiffre bii ñu jëm c'est des combinaisons mhm. des com des des compromis politiques et aujourd'hui la majorité à intérêt non seulement consolider li mu yore donc pour des raisons politiques tu as vu le président pour bañ benn fissure am ci kawam. mu dajale moom njabootam bi mu am ñi mu jot a fal lu mu ciy dolli sax amaana. xool leen ba pare naj loolu ba pare tee ko di jéem a wut lu mu ciy loqate pour dolli ci ba dolli woon na ci benn Pape Diop pour mun a am 83 bi. mais est ce que tax na ko mu am marge de manœuvre bi mu soxla. parce que bu fekkoon ni dafa amoon comme bële passé am 125 députés wala am 140 députés. ci la gënoon yomb. ci boobaa lu ko neex mën na koo dérouler mais fi toll nii. Euh, jeu politique bi dafay changer et quelqu'un comme Doudou Wade ma koy nuyu de passage di ko rendre aussi hommage parce que tey ak expérience bi mu am yëpp en terme parlementaire c'est quelqu'un qui aime partager c'est quelqu'un qui aime débattre bu waxee rek xamal ni li mu wax lu lu mu lu mu lu mu maîtriser la surtout lu jëm ci wàllu assemblée nationale naa ici euh, l'objectif boo dajalee ku jég yëpp mën nga def sa benn groupe parlementaire mais man à mon avis pour man pertement la comme yow dafa am nombre boo xam ni lim boo xam ne boo ko amee am nga droit am groupe parlementaire donc opposition bi mu am ñaari groupe parlementaire ñett groupe parlementaire plus muy am groupe parlementaire plus muy gën a am taxawaay en terme d' et d' ailleurs président groupe parlementaire bu nekk dañ lay considérer comme membre du bureau de l' assemblée nationale. Hmm. donc su fekkee benn foofu la enjeu bi nekk justement et les forces sont groupe parlementaire nga am tu auras droit à Euh, quatre vice président fii. voilà quatre vice président fee. donc si séddale cër euh, xaw ma ñaata question. bul fàttali assemblée nationale et cetera yamul rek dafa am ay dafa am ay député simple. sooy seet. cër euh, la non inscrit am na cër bu mu amoon bi mu commencé jël yenn position yi en tant que allié ñu dindi cëram bi ñuy doog a falu Bart am na yenn cër yu mu amoon. tey Abdou Abdoul Abdou Mbow. Mhm. Eh, assemblée bi passé il était vice président vice président cër bi mu am. privilège yi mu am bokk ak député simple bi li mu am est-ce que da ngay bàyyi yow euh, ñoom ñu jël yëpp wala da ngeen di organiser wu pour que ñoom fu ñuy toog ngeen mun fa toog fu ñuy nasee ngeen mun fa nas fu ñuy dogalee ngeen mun fa dogal je crois que c'est ça l'intelligence euh, politique c'est-à-dire ku jegi ñoom nan la ñuy def ba bu ñu mënul jël président assemblée nationale war na mën a nekk war nañ mën a am candidat et puis on, a vu ce qui s'est passé dans plusieurs conseils municipaux yow ci combinaison yi ni ngay xëccee fële def ay combinaison ba mën a jël cër bu mag bi tey scénario bu nekk mun na am. bien sûr. président mën na fal gouvernement oui na fal gouvernement par exemple am ay frustration am si moo tax ma la doon wax man gisuma Macky muy teg gouvernement am tant que tegul assemblée nationale. parce que risque politique la ci moom. c'est clair maintenant euh, assemblée am na ay questeur questeur daanaka moom mooy gérer. <laughs> weccit bi moo koy gérer day am. ki topp ci moom euh, président yi dañuy am ay vice président donc comment l'opposition va s'organiser c'est-à-dire mooy li waa ji doon wax chacun peut emprunter un chemin alors que ngeen bokk un but commun c'est-à-dire comme ñoom ñëpp ñoo bokk objectif bëgg nañu am opposition bi am doole am taxawaay su ñu amee ay groupe parlementaire bien organisé ça leur permettra d'être Euh, plus outillés pour faire face dina leen permettre ñu mën a organiser seen temps de parole dina leen permettre ñu mun a toog maintenant yeneen débat yi peut-être egg guñ foofu euh, bi la prise en charge des préoccupations des préoccupations yooyu moom peut-être beneen beneen beneen jéego la beneen jéego la maintenant al euh, fa soit bi ñaari mbir laa si gis benn bi mooy assemblée dootul mel na meloon parce que débat bi fi muy toll nii ak ni composition bi amee ñenn ñi bu ñu absenté doo jouer rôle bi nga waroon jouer ça c'est un mais beneen bi il faut pas que ñu may wax ay list remplaçant wala suppléant non assemblée nationale c'est pour les sénégalais c'est des députés c'est-à-dire assemblée nationale sama copain bi defar daal uude bi moo bari dafa war a toog pour daal di waxal ay mbokkam assemblée nationale jaaykat bi am na fa place penc ndaw réew mi la képp ko bokk ci réew mi war nga faa toog corporation bu nekk beneen bi mooy euh, bii nii dafa comme li nga wax souvent dañ doon am assemblée nationale juste après présidentielle donc assemblée nationale bi ak formule bi mu am mun a gudd fan gudd fan boobu hmm. cest à présidentielle bu jàllee deux mille vingt-quatre hmm. ki fi toog assemblée bi am ñaari at su bu ko doyee mën na koo tee waaw bu ko doyul da koy dindi donc ça veut dire que euh, assemblée bi seen nguur mun ta yàgg du du dépasser voilà man mais am na lu ma bëggoon relever ci li mu wax c'est-à-dire xam ñu ngi wax plusieurs groupes parlementaires moo xam opposition bi hmm. mais tey tamit li opposition bi mën a def <laughs> mais pouvoir bi aussi mën nañ ko def. bien sûr c'est-à-dire éclater seen 83 yi. waaw groupe parlementaire c'est 14 xaw ma. 17 députés xaw ma je sais côté yooyu la c'est moins de 20 donc nga ko diviser pour xool nombre de groupe bi ngay am sensiblement moom ngay am fële peut-être à mais loolu aussi au fond si aussi il faut ñu interroger wu bu fekkee def nañ mais groupe parlementaire yi aussi en termes de de prise en charge financière dafa am coût aussi dafa am coût gars yi tamit bu fekkee ni dëgg-dëgg askan bi moo leen tax a jóg muy opposition du pouvoir est-ce qu'on ne peut pas éviter ça aussi ah parce que su fekkee ne bu ñu éclater nombre de groupe parlementaires nga <laughs> opposition am trois ou quatre postes yi ànd ak ay avantages pouvoir def noonu am trois ou quatre ku nekk groupe parlementaire bu nekk war a am avantage yi nga xam ne benn groupe moo ko waroon am quatre am ko mais loolu tamit loolu tamit dafa am. coût mais Lamine man au delà de au de l' aspect. waaw non c' li ma la bëgg wax aspect politique boo amee groupe parlementaire dina la may. nga am dayo boo xam ne di nga mën a jël temps ba Moustapha Niass du la fa toog naan la sa temps jeex na wala bul wax. di am foo temps mais loolu tamit boo ko amee est ce que aussi ñii bu ñu amee quatre groupe parlementaire ñii am quatre. est ce que ça ne revient pas à que ku nekk am benn c' est la même chose. waay c' est est ñaar ñëpp bu ñu éclaté finalement mais c'est le contribuable qui va qui va payer tout ça. Mhm. alors que peut-être li ñu ciy séntu en en matière de présence politique dootu ci am parce que bu fekkee ki dafa am 4 kii am 4 wala ki am 5 kii am 5 amatul sens dafa mel ni ñoom ñaar ku nekk am benn. donc loolu tamit je pense groupe bu ne daal garder groupe c'est ça je pense que aussi <laughs> ñoom. c'est des raisons si ni mu mais loolu dafa am sens non mais loolu. dafa am sens aussi. parce que aussi bu fekkee ni opposition bi dafa éclaté. nombre de députés bi mu am. Hmm. en nombre de de de de de. groupe parlementaire hmm. pouvoir bi tamit pour contrer ko def loolu. mais finalement ça n'a pas de sens. mais mais mais mais président mais Lamine. ça n'a pas de sens mais Lamine li ma si jaaxal mooy li nga li nga wax li ma si jaaxal mooy. xam nga ku mel ne Sonko dafa ne woon euh, accord bi ñu amoon ñoom waa ye waa yeewi. wàllu euh, mooy ñu amoon benn groupe parlementaire Sonko loolu la wax. Hmm. nee na ñoom loolu la ñu waxoon comme accord. léegi nag peut-être que man li ma. accord wàllu yéene. waaw nee na li ñu waxtaan woon en tout cas. waxtaan seen biir ñoom. léegi nag man li ma si comprendre mooy. cest Sonko vision moo nekkoon ñu am une opposition unique mais qui tourne autour de qui autour de lui man li ma ko analyser autour de lui sauf qu'il n'est pas autour de lui mooy ah. cest dire ñu tourne autour de Yewwi foofu laa bëgg a waxee léegi nag mais peut-être que li ma comprendre mooy opposition bi nous avons une opposition plurielle c'est-à-dire opposition boo xamante ku nekk da opposé wu à ta manière mhm. am na ñoo xamante ne maam volonté Sonko xam nañ ko mais duñ ko wax dañ koy contrer. Hmm. dañ koy contrer dans la démarche. d'accord mooy da ngay xool par exemple tey bu euh, Doudou Wade waxee ne il faut que am kenn ku ne groupe parlementaire cela veut dire wala ñu ngi écarté wu nànk-nànk. te man aussi bu bu kii di euh, Khalifa Sall di semer du doute déjà si waa Benno di wax ne peut-être que ñoom euh, li nga wax ni mën na bañ a nekk parce que am na ñoo xam ne seen sukk dañuy génn te buñ génnee dinañ fragiliser dinañ affaiblir li nga xam mooy Benno pour man Khalifa Sall. pour man comme ñu ñuy njort ne ñu ngi ci yeewi. wala wàllu waaw c'est ça waa Benno ñu ngi leen di jéem a xëcc ñu ñëw dolli leen si moom boo ma duglu bu baax pour man nag euh, celui à qui on doit se méfier c'est Khalifa Sall pour man Khalifa Sall pour man moom si boppam Sonko et les autres doivent se méfier de Khalifa Sall. parce que parce que man pour man pour man moom. on n'en est pas encore là pour man moom euh, dislocation bi. pour man division bi. Mhm. moo koy avancé ay démarches parce que d'accord on n'en est pas encore là parce que euh, euh, mhm. on reste encore sur la journée du 12 xaaral xaaral on reste encore sur la journée du 12. parce que d'après le règlement. man mhm. li ma ci comprendre Lamine mooy. bu keroogee le député le plus ancien. moo jiitee séance bi ba keroog ñuy fal président. buñ ko falee nag muy doog a jëbal léegi président doog a ñëw àggale li des ci liggéey bi mm-hmm. et le plus ancien dans tout ça c'est maître Abdoulaye Wade sama maam bu demee siège bu keroogee moom mooy jiite séance bi. mais est-ce qu'il sera là. est-ce qu'il sera là looloo tax nag. looloo tax nag mu jar nag peut-être qu'on se des questions. également c'est bon c'est leeral ko également ci boppam. c'est bon c'est bon est-ce que Pape Diop n'est pas le plus ancien. waaw mais c'est bu ah. moo wax mm. euh,